ñaata kër ngay dugg fekk ñetti suppu kànja yu tegee ci ñetti koñ ak ñetti suluxu mbalax waaye benn cin bokkul safin koñ boo dugg da ngay gis ki togg suluxu mbalax kii togg yaasa wala kii togg suluxu mbalax kër gi togg suluxu mbalax wala ñëpp bokk këru bokk bokkuloo ñëpp teg ay suluxu mbalax waaye suluxu mbalax yi cin bokkul safin bii dégg am diw niin taa ratax bee kànja gën a sañ ti nga dege defi dooñu te du am diw kon kay wax ji jeex na waali Sénégal gépp bu nu génne woon clip mu génne clip eh mujjee juddu ëppi ndonga gën a baax ñëpp bëgg la te saa yoo xëyee muy yokk pour waali Dixi d'or la ñuy xaar jour coupe du monde la ñu jëm ñun Dixi d'or la ñuy xaar lan laay wax ci lan lan laa ci wax nee naa la danga ne dañoo génneendoo kii daa génne kii génne à chaque moment ma bëgg laa xamal ne kër goo dem suppu kànja kii day togg suppu kànja kii togg suppu kànja waaye suppu kànja yi cin bokkul safin bi gën a neex la ñëpp di añee léegi kay ku mën génneel loolu nga bëggaan ma wax ko damay wax kii bul génne kon du ma benn conseil na gën a neex rek gën a saf yow lu xoolal loolu du combat bàyyi leen di tëkkale man xam ñeen laa contre yéen internet yi parce que yéen yéen a war a dul sax di xalaat waali di am koo leen ciy teg parce que yéen yéen indi coow li ba mu bari man nag coow li nit ñi di coow man man dama koo gisul man ndax waali arène bi mu nekk roi des arènes la ci amul moroom te roi bi pour mu jox ko gone da ngay travailler man gisuma li ngeen di boole man ñaan ñi ngeen di tëkkale man gisuma ko waaw. non man gisuma yaa ngi seetaan du yaa ngi gis yaa ngi koy dund yaa ngi koy yëg a atteel sa bopp. sant ñëpp gërëm ñëpp di ñaan ci yi sëriñ Saaliwu sama waaja yàlla na jour yi am ndam te bu ñu ko amee yàlla na leen jig te na ñëpp daw ndànk oto yi nañ daw ndànk scooter yi nañ daw ndànk xale yi nañ def ndànk am na ñoo xam te dañoo woor ña nga jëm ñaajoo toog nanu dal waaye nanu supporté ba mu neex waaye bu kenn xëccoo bu kenn mer bu kenn def violence stade bi tamit stade la ñun ñoo ko moom te président Ablaye Wade lañ tuddee stade bi lii laa wax man bala neen ñëw ma wax ci. non tuddee na ko ku jara tuddee président ko tuddee dara te stade mais c'est normal yàlla na stade yi bari ba ñëpp am turandoo. Abdou Diouf am turando Senghor am turando parce que ay référence nañu téye nañu Sénégal mais c'est normal moom rek la ko war a tuddee beneen stade yi di ñëw sax Wally Seck lañ koy tuddee quoi Papa Thione ñun dañu war a am ay set ay nit ñu baax lañ ay monument lañ te président Macky Sall nag wax dëgg yàlla nag daf noo jig de moo tax ñu am terre moo tax ñu am coupe ah moo tax ñu am stade sunu tali travaux yi eh, ku gërëmul nit doo gërëm yàlla waaye nag li ko waral mooy dafa am jabar joo xam day togg juróom-ñaari ndabi laax ak 41 nàkk ceeb yi nàkk dugub ndax femme de sénégalaise la kon nañ ko bàyyi xel président Macky li mu indigré gul moo ëpp li mu indigré nañ ci bàyyi xel wasalaam Sénégal ndam rek.